daanaka. Euh, seen ñàkk a faju yëpp. ñàkk mm-hmm. moyen ñàkk moyen ñàkk moyen bu ñu amoon moyen dañuy dem. li mm-hmm. ma benn boo xam ni. Mm-hmm. day bind ordonnance bu bindee benn garab. bindee deux. trois nee na bu bindee quatre ak da ngay patient rek. moo tax muy bind sa garab. waaw bu pensé deux rek. nga commencé découragé xalaat fooy jëlee ji xaalis. waaw kay loolu tamit médecin yi tamit war nañu mën di. di xalaat loolu tamit bàyyi di xalaat nit ñi quoi. parfois xam nga Sénégal ni nga ko waxee Pape nit da ngay yeewu feebar. ñu naan la demal hôpital fekk xëy na sax yoroo loo demee hôpital. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. abonné ak cloche bu ndaw bi pour vidéo am bul abonné ak cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ am wa rahmatullah di leen fàttali yéen a ngi seen programme fagoro fagoro nag comme ni ngeen ko xamee euh, chaque semaine ñu fi dalal professeur Ousmane Ndiaye muy borom boga bi yoo nekk tradipraticien nekk fële si diwaanu Kër Massar ñi nga xam ne bëgg nañ ko contacter euh, bëgg nga ko seeti numéro moo nekk ci suufu écran bi euh, professeur nag chaque semaine dina am feebar boo xam ne dañ ko waxtaane semaine bii ñu ngi ñëwoon ci fibrome première partie bi expliqué woon nga ñu li nga xamante ne moom mooy fibrome ak ni muy euh, def ci nit kii fi muy placé wu ak euh, jafe-jafe yi mu mën a indil doom aadama mi su dee dal na ko euh, léegi na tey moom dañuy ñëw ci li nga xamante nag mooy comme ni ñu ko waxoon ci vidéo pass ci bi prévention mm-hmm. maanaam ñi ngi fe dafa mel jigéen la tamit je crois voilà jigéen ñi daal laa xam <laughs> góor gu feebar moom ko <laughs> voilà léegi xam naa nan ngay digal jigéen ñi ñuy def surtout pour feebar bañ leen dal ak nga xam ne actuellement moom dañ koo am voilà ak sa dépend ci phase bu ñu ti toll. yan conseil nga leen di mën a jox ginnaaw bañ ñu doon ñëw di la ziar. salaamaaleykum wa rahmatulah sëñ Pape Modou Lo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. Mhm. ngi mhm. liñ ci wax rek mooy ci comme koo xam ne ci première partie bi ni causes yi exact xamuñu ko. Mhm. mais gis nañ ni boo utiliser les graisses graisses. day yokk estrogène bi day day fa produire des estrogènes mm-hmm. te yooyu day favoriser pour le développement ci màggaayu mm-hmm. fibrome bi mm-hmm. donc la première chose ci prévention yi mooy éviter les aliments gras mooy ñu bàyyi wala ñu wàññi lekk bu niim bi que da ci am impact donc dañuy wàññi lekk bu niim bu fekkee tamit nit ki am na ko moom na bàyyi yooyu na bàyyi aussi yàpp la viande. parce que tamit baaxu si. Mhm. nga xamante ni tey am nañ euh, fibrome exemple nga xam ne ñu ngi seetaan. Mhm. nga xam ne xëy na ñu ngi dem hôpital. Mhm. di traité wu. wala ñu ngi dem ci beneen marabu di traité wu. donc suñu mënee bàyyi graisse. bu ñu nee graisse mooy lu niin. suñu nee euh, des aliments gras. lépp loo xam lu niin la rek. bàyyi ko. bàyyi yàpp aussi. yàpp bu mu mënti doon rek. viande surtout viande rouge yi ku demee noonu. Mhm. jàpp xar ak bëy ak moom nga bàyyi ko. Mhm. mu bàyyi tamit ay aliments transformés. Mhm. ñu ko waxee woon aliments yi nga xamante ni muy ay chips lu mel ay chips ay pâtisserie. ak yu demee noonu. yooyu tamit di faire ay exercices tamit di ah. a a di consommer ay fruits. ak jël lu bari. waaw ah. ak ay légumes. jël ay fruits ak ay légumes moom ñu bëri ñu ko sànni ñu ko wax. day di éviter tamit les produits laitiers produits yi nga xamante ni. Eh, ci meew mi la jógee. ñu koy éviter mel ni fromage ak yu demee donc éviter aussi constipation daf naa waxoon nekk ci seen tamit. waaw ba éviter di seere daal. maanaam nit ki day naan ndox mu bëri. Mhm. jël fekkente ni. am na sax jar na sax mu jël loo xam te dina tax mu dem toilette. Mhm. mu di ko jël pour éviter seere bi. dëgg la seere bi baaxul ci moom. Mhm. baaxul di naan tamit ndox mu bëri. Mhm. wut na xam bëri. teg ko di ko daal saari bu mbaay bu bu marul sax nay naan. nay naan waaw ndox moom dina ko dimbali ci lu bëri. donc produits yi nga xamante ne am na meew yu ñu ko waxoon sax. na ci nga xamante ni moom. ko war a euh, éviter carrément. daal ko war a bàyyi. léegi nag su ko bàyyee nag. ñu doon deuxième phase bi nga xamante ne mooy yan garab. nga war a utiliser ci baax. loolu mooy jëm ci côté moytu bi daal. moytu bi waaw voilà moytu bi ku daal. Hmm. boo fekkee da ngay faj. Hmm. ndax am na yoo xam koy yooyu da nga koy bàyyi. dëgg la kon nag doo hmm. nag. faj dina dina tax faj mi gaaw. faj bi am résultat. mooy bien sûr yàlla mën naa la. mais liñ lay tere boo ko bàyyiwul day fayu ah yow day waar de. dëgg la de suul. waaw waaw pënd bi pënd bi bëri bëri ah, moom mooy faj boppam. waaw mhm. ah, donc am na am na boo bëggee moom foog nga bàyyi. la comme ñii faju jabet. nga mhm. foog ñu bàyyi suukar. Ah, waaw c' est ça le problème. Mm-hmm. mais booy jël suukar bi di faju. lu garab gi baax baax du am résultat. dëgg la de c' est ça problème aussi. di faju cancer di cancer des poumons di tux. waaw logique xam si contradictoire mënta nekk moo def da nga mm-hmm. nag yooyu ñu ñëw ci garab yi nga xamante ni. Mm-hmm. mooy sax ñi daan ci fajoo. liñ ci xam. ñu joxe ko liñ ci xamul it. ñu dem gëstu ko donc lu mel ni réew dànk. bàmmee di ko baxal di ko war a laal ni mhm. eh, fibrome bu ndaw la mhm. laa dañu am précision bu fekkee fibrome bu ndaw la mhm. see yàq mais bu dee fibrome bu mag nga am na fu muy toll opération rek moo ci mu la bokk man boo sama xam ma éwru foofu yenn fa am na fa bu fa tolloo tamit comprimence demal yi ñu opéré mais bu dee bu ndaw la nag moom. soit bu fekkee ñoom sax en général dañ ko mën a traité jox la ay garab yu koy seeyal. wala nga dem ci kii bi. maara kii maara yi nga xamante ne dañuy faj. ñoom ñu jox la ñu koy seeyal. su fekkee nag yooyu yëpp amul. mën nga jël sa mën nga ci boole wala sa xasee dàq. waaw togg ko di ko di ko naan. ak garab yu ñuy wax xoos. xoos waaw. xasu xoos xas bi ngay jël. xas bi ngay jël moom it baax na di ko di ko naan. moom it baax na ci ñi nga xam ne fibro. boo amaatee lu mel ni gowe gowe bi jigéen ñi taal. gowe waaw gannaaw set moom it. Mm-hmm. di ko naan baax na ci fibrom boobu. Mm-hmm. léegi li ñuy wax dàmbal. wax nañ ci vidéo. Mm-hmm. depuis Géria Africa la. donc moom it baax na ci. bu amee poudre. doom doom bi def ko poudre. poudre di ko naan. baax na ci tamit euh, euh, fibrom. ci fibrom baax na ci moom baax na ci. bu fekkente ne li ñuy wax tamit siddeemu bukki. Mhm. siddeem dafa am siddeemu bukki am. waaw xam nga amee siddeemu bukki moom it. Mhm. ween bi boo ko amee. Mhm. wala am doom boo ci am baax na bu dee doom bi tamit da nga koy war def ko sunguf maanaam nekk sunguf. nga di ko naan baax na wala nga jël reen tamit di ko baxal di naan moom it baax na. donc yii daal yi moom boo ci am. mën na di am fibrome bu ndaw nag lañ ci wax. di ko utiliser yàlla mën na dem ba mu seeyal ko ba dañoo mën a dem. loolu yaakaar naa leer na muy feebar boo xam ne màggagul indeegul ay ay complication yooyu mën na ko fañ mais bu dee dafa dem nag ba egg niveau boo xam xaw na mag mm. nit ki dem peut-être hôpital ñu opère ko dindi ko gën voilà te loolu yëpp nag lu lu bët mën a gis mm. ci biir yaram la biir yaram la nit ñi war nañuy dem temps en temps kon ben yoon sax par at wala su ko mën sax moyen man ben yoon juróom benn weer yu ne wala at mu ne wala et cetera ça dépend ci nit ki ay moyen mm. parce que dama faju Sénégal dafa seer ah, ça le problème tamit voilà moo tax nit ñi tam des fois euh, li ñu bëgg yëpp léegi léegi du ñu am moyen yu ko dem def ama ki nga xam ne bu xëyee dépense day lijjanti mm-hmm. mënul euh, sa ñetti weer mu dem di dafay rajo ay 40000 ay nangam ay 30000 40000 50000 000 50 voilà te fii affaire danseur uh, uh, la léegi foo dem di faju rajo lañ lay wax wala ay affaire te rajo boo demee ñi koy def tamit dañuy dañuy fay ko day seer dañu fay ko ay deux mille ak mille francs dafa seer voilà boo paree nga dem ñu bind la fukki garab juróom benn nga dem tamit dafa seer pharmacie voilà moo tax nit ñi am na yoon peut être buñ ko bëggee moyen wu def ko lañ dul am waaw te donte baax na bëgg nañ ko mais moyen wu def ko mais ku ko mën moom ngay dem régulièrement di def consultation générale générale waaw bu ko defee bu ñu amee luñ gis sa yaram lu ndaw màggagut ñu mën koo teel a gis comme ni nga wax nii bu ko defee mën koo saafara su dee musoo ko dem defe nga ñëw def ko ñu gis ni lu mag la mm-hmm. bu ko defee ñu opéré ko opéré loolu yàlla naa dina ci am solo dina ci am solo mais li nga wax rek moo ci nekk tamit xam naa bëgg nañ mais dañu mënul ah, waaw donc loolu mooy problème maanaam Sénégal moom ndóor gi moo fi moo fi moo fi ko dafa metti li mm-hmm. nga am ñoo xam ni daanaka mm-hmm. euh, seen ñàkk faju yëpp ñàkk moyen ñàkk moyen ñàkk moyen dañuy li mhm. ma benn waay da ngay boo xam ni. Mhm. day bind ordonnance bu bindee un benn garab. Mhm. bindee deux trois nee na bu bindee quatre ak <laughs> parfois xam nga Sénégal ni ñu ko waxee nit da ngay feebar. ñu la demal hôpital fekk xëy na sax yorooloo demee hôpital. Mm-hmm. la nga yor benn deux mille francs wala cinq mille francs ci dem hôpital boo demee. Mm-hmm. mu wóor bi nga bindalee garab it da nga ñëw boomutul denc ko. Mm-hmm. da nga jënd benn euh, bàyyi bi ci des. la nga jënd ñaar bàyyi yi ci des. waaw parce que des fois nit ñi da ngay su ñëw si pharmacie. Euh, day xool yan moo ci gën a. yan la jàppoon moo ci gën a urgent. wala boo xam médecin bindal ko yu bëri mu ko yan moo si wut ñàkk. waaw kay xam na ne mun cinq garab yi mun ko jënd. jënd waaw cinq garab yi mun ko jënd wala vingt cinq yëpp dix mille francs te bëggut a dem lebi bëggut a dem ñaani da fay xaw compliqué dal mo yalla yàlla yalla dal da defal wër ak wër waaw parce que am solo la parce que bo wéré dé directement wéré di nga so wéré di lélé léeg maam ben jabot wala sax ki bu wéré dé wéré di nga fiir muy wér muy wér waaw muy wér doo am jam voilà té faj mi Sénégal war nañ ko organiser mm-hmm. ñak nañ ñak man dal ñak na organiser trop da ngay dem hôpital da ngay dem hôpital Sénégal ngay dem hôpital do xam des fois yow banque nga dem wala hôpital nga dem hôpital <laughs> yo xam dañu am ay gisé ci buntu yi hmm. ay gisé xol professeur yalla na yalla dimbali ba nga dem espagne wala nga contacter ko fa dem nga laaj ko hmm. hôpital bu fa am ay gisé amut voilà wala bok comme espagne dafa reuy do daf mu tuuru espagne dekk yi ba nek yep te dekk na barcelone hmm. nek na tam asturias asturias moy capitale presque sen bourg bi sen prince bi ni fofu mooy dëkk bi am mooy raison boobu quoi fa dëkk. Barcelone yaa xam naa ñëpp xam nañ. xam nañ hôpital yi nga xam yëpp dem naa fa amul benn bu ma gis boo gisee. système mu faj bi organiser nañ ko ba nga xamante ni ku feebar da ngay dem faju doo fay dërëm jot daal bu fekkee faj nañ la ba pare nag léegi ñu bindal la ordonnance. Mm-hmm. nga dem pharmacie koy jënd. Mm-hmm. soo demee pharmacie jënd genn wàll prix ngay fay su mm-hmm. fekkee yaa ngi liggéey genn wàll prix bi ngay fay. Euh, pharmacie bi day dagg benn étiquette bu nekk ci ci ci ci garab bi def kole ko téye ko. jox la garab bi garab bi bu dee jar par exemple euh, dix mille francs nga fay cinq mille cinq mille bi ci des moom après yooyu yëpp weer bu dee da leen ko cinq mille cinq mille yi ci des yow moitié ngay fay su la garab muy jar dix mille sa bopp parce que duggoo ci système hmm. sanitaire maa amoo carte sanitaire booy liggéey da nga am carte sanitaire sa salaire da am lu ñu la si dagg as tuut pour faj pour boo feebaree ñu faj la soo feebarul ñu ciy faj ñeneen ñu feebar c'est que fekk hôpitaux yi ku feebar ñëw ñu faj léegi fii luy ndeyu mënuñu organiser loolu ñuy dagg nit ñëpp am carte ku nekk da nga am carte carte même boo xëyoon góontoo ci gouvernement nga am carte carte bi ngay cotiser weer 1000 francs hmm. comprendre nga nga xam ni yow yaa ngi wér mais sa 1000 francs mi ngi faj ñeneen hmm. heure boo feebaree 1000 francs wu ñeneen mi ngi lay faj nga xam ne dinañ mën a faju ci hôpital yi te du soxla ku feebar ñu ne ko da ngay dagg ticket ba pare soo ko faju feebar nit feebar feebar yaa xëyti feebar mu ñëw hopital ñu ne ko da ngay fay soog a faju mais loolu loolu loolu ban humanisme la quoi loolu. loolu ak nit a nekkatu fa. quand même social nekkatu fa dimbalaate nekkatu fa loolu loolu business la. Hmm. hôpital yooyu dugg Sénégal gisee man damay ruus sax bu ma duggee hôpital. Hmm. hôpital principal hôpital Dantec hôpital fan yëpp ci yem da ngay dem nga gis ay gisee gisee gisee ay nit toog di dagg ay ticket. nit ñi xaalis ñuy fay ñuy dagg ticket ñuy rang. hôpital principal ci mbedd bi mbaa mu ci mbedd bi. li may andi luxusuma ko man damaa yóbbu ay malade hôpital hôpital principal mbaar mi ci mbedd mi banyi mi ci mbedd mi xam fa la nit ñi di rang boo beegul ba ñuy xëy si dagg tigay xëy nga nit ñi rang di dagg tigay pour dugg dem pour soga dem yow fi ngay fajoo loolu neexul ba neex mais dafa rusul ay malade yuy rang di dagg tigay pour faj si Sénégal 2023 c'est public c'est public service public public hôpital public amatul. en réalité waaw dëgg la neexul wax mais hôpital public moo fi amatul. voilà c' est la réalité parce que man mënuma comprendre Espagne di def hôpital ku feebar faju doo fay Sénégal mënu koo def loolu warta mën a ne. mënta ne waaw ñàkk d' organisation la. da ko organiser te doo gis benn politicien bu ci wax. c' est loolu yitteel nit ñi dëgg professeur. benn politicien du ci wax. ci yeneen yu ñàkk fay day pétrole ak yooyu la ñuy nekk di wax ay affaire yoo xam ni xaalis day génn directement mais yi yitteel nit ñi dëgg dëgg dëgg duñ ci wax ba pare nit ñi am ñàkk ko fay leen topp. ñu ngi ko toppee duñ dem professeur ñu bàyyi la nga nga ñu ngi lay ñu baal ma nag entre parenthèse cri de cœur la woon parce que ñàkk ñàkk yi ñu ci taxaw wala idée yi egg foofu développé noonu la parce que tamit. Euh, nit wax na ma ne dem na hôpital. dawal feebar. laaj ko cinquante minutes boo ko ñu dina laaj li may wax ne lu lu lu wér la. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو وقرن في بيوتكم